Amin amin. Bismillah. Amin. Yele yele may ñëwul tax comme ministre bi la waxal ko mbirum forage bu mu démé Dakar mu mu mo barki dem mo ne mo il faut nga ñew parce que buna ma ne buna ne na ma bagage yi pare na mais buna ndeké bi bagage yi paré mom yàkkamti na am bagage yi jógee Dakar mu tek ci moteur bi indi ko dem man bima ma ma indi pompe bi ak armoire bagage yi nag ba légui dess na parce que tuyau yi wara dem ci teen kat kat bi mënu ko indi armoire bi wara a câble kii bi tamit ñëwagul mu ne li ngeen ko jàmbaltaloon andil na leen xëy na nag mosu leen a seq wàllu soxla ngeen jóg ñëw wax ko soxla mais mu xam ne amu leen caaxaan te ndox lu nekk dafa nekk loo xam ne président dafa santaane ne warul ñàkk fen surtout bu sell bi mu def ci effort def ci lu def na ci lu bari daal ba lii ñëw bu boole woon ma ak bàggo mi ak baabu ne bu ñëwee nañ ñëw comme délégation ngeen defoon ñëw moom tam mu def délégation ñëw jébbal leen bagage baabu wax jaa ngi noonu yéen waa Koungheul foofu ñu ngi sant di gërëm toog euh, ngi koy wax léegi baab ko ne ko yow jaaroon nga fa sax di ma laaj soose ma ne ko waaye daanaka jëm sax jaar fi di ma laaj ndax soose li ngeen ko wax lu ko ñoral lu ko ñor la xam naa ne gisuma ko waaye mu nga ci ay tànkam xam nga loolu la wax son place wax ci kaw waaw kon la ma la waxoon xam nga seede ji ñëw na moo tax euh, man li may wax soose euh, nit ak njëriñ la soose falaguñ ko benn pal fii ci Koungheul amagul benn fal seetal li muy def ci biir Koungheul bon buñ ko falee fu mu jëm kon buñ ko falee suñ xol gën a sedd kon nag ñun waa Koungheul ñun ñoo war a xam sin faayidaay bopp ànd ak soose liggéeyal Macky Sall buñ ko defee rek jëriñu mu jëriñu Macky Sall jëriñu politique xamul lenn lu dul lii nga wax ko sa soxla mu jog def ca lam man kii barki démb rek ngeen koo tawatal ah boobaa léegi matagu sax jég jégul sax weer aha kon kii def na lu man ak lu man gàcci ngaalaama soose gàcci ngaalaama soose ñu ngi koy jërëjëfal bu baax man la ma doon wax rek man ne maa ngi ànd ak gannaaw man fi di politique ànd naa ak politicien bu ne mais li soose def ci biir Koungheul ci moom rek laa ko gis gisaguma ko ci benn politicien kon nag comme yéen mu yéen ñi mu jëflantee ngeen rek la ngeen waxoon ak ngeen def lu ko raw ak santam li ñu ci boole ci délégation bu mooy keroog bi ngay def délégation ñun nga ko fekkoon ak Baabu ak Alaaji bi nga jàmbatee sa wax ba pare mu ne la bu ma demee def ci ay jéego bi ngeen dëddee dafa ma ne man de wax bi li ma ci gën a marqué mooy jigéen ñi ñu wax ne ñu ngi wëgg naanam baagu jigéen ñi sonn nañ ma ne ko ah waaw ñu root ci teen heure bi sonn nga mu ne ma lii de ma demee mooy doon suma premier soxla mooy doon suma mujjeelu soxla heure bu la waxee nag heure bu ma ko ne ooyee téléphone yenn daal na ko maa fàtte ba mu ne ñoom du ma leen mus a fàtte léegi mu sotti lu mu wax ak nit ma nga ca te am na yërmande ci jigéen ñi jigéen la bëgg na jigéen ñi am na ci jigéen ñi yërmande loolu moom ñun xam nañ ci dara ndax ñun bañ dalee ànd ba tey ànd nañoo politicien bu ne bi ma ko ne soosé man wax bi li ma ci gën li ma ci gën a tuuse mooy ñu ne kuñ ko war a wax wax nañ ko ko jéego amut ñëw mujj nañ ci yow fexeel yow ba def ci jéego mu ne ma loolu nag moom ma gën a marqué ci wax ji ndax nee na kuñ ci war a wax rek wax nañ cee yow sottiwul comme que ki ngeen ci war a wax wax ngeen cee moom sotti wax ngeen cee mu sotti yàlla bu jëflante bi mu em seen diggante yàlla ngeen jëflante ay yoon yoon yoon te xam naa ne boole na leen ci boppam faale na leen mënoon na cee lu ñutu ne lu ñutu dara lu dul jigéen ñi mar nañ dëkk ba mar nañ Macky Sall bëggut ku mar maa ngi dem uti su ma ute yàlla dina ma ci may ndam ba mu utee tam yàlla may na ko ci ndam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di tàllal loxo nag di leen wan ne soose nag di kii wax rek jigéen la joo xam ne jigéen njëriñ la jigéen njëriñ la ndax dafa am yërmande ku gis li muy def Koungheul nga xam ne kii ku bëgg Koungheul la su fekkoon ne soldam rek lay jël di ko def Koungheul bu fekkoon ne la ko neex day téye soldam ay doomam màgg nañ am na place bu baax muy wax ne dootuma ñëw Koungheul am naa lu ma dundee waaye def ne man lu ma mënta am yàlla naa ko bokk ak waa Koungheul lu ma natta bokk waa Koungheul yàlla bu ma ko am kooku nag ku la ko wax ku ne jar naa sant jar naa gërëm ñun de ñu ngi lay seen tur yéen waa Koungheul soose ñi ngi delloo soose njukkal ñu ngi koy gërëm ndax lii ku leen ko defal ñun lañ ko ñun leen ko defal ndax Koungheul ak Koungheul Socé benn la ñun ñëpp ñoo bokk mel na maam ku leen taral ñun la taral sant nañ ko ci teraanga ji gërëm nañ ko ci wax di leen sant Ndeye Diaye la eh, Karfa Camara nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen eh, tatagal bu baax a baax a baax te di ñaanal yàlla ne yàlla am jàmm te barile ko yàlla nañ ko yàlla booloo defal eh, jiwo barko bi ñamee ñeena ormay ndox ak barkay ndox mm-hmm. moo ŋuutaa moom kan kooku ku jël coono boobu ci kaw doomi aadama surtout métti bi yëpp ci ay jigéen moom fenn ci te muy jigéen mu jëlee leen naqar boobu ak métti boobu ak xiif bi ak coono gi ko koy yëgati wàcc seen coono boobu mu ne ko di seen tax ci àdduna bon alter délégation Kolom woon na Kolom moom doon nee na bu jiitu bi ñu leen di sant leen gërëm nee na Socé Diop moom nee na Socé moom yàlla koy ñaanal yàlla koy fay nee na yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay. ci barke yonent bi. nee na seddaay ndox ak sellal ndox yal na ko yàlla defal soose. ak mboolem ñamu àndal. la muy wuti nag la ko gën a kawete mënu ko xamu ko yal na ko yàlla defal loola. yal na ko yàlla musal yal na ko yàlla gërëm ci daraja yonent bu tedd bi yal na ko yàlla may soxla bu faju ci barke yonent bi. ci barke yonent sallallahu imam nee na mu ngi nuyu délégation bu sell bi nga xam ne moom bu jógee ko Koungheul ànd ak alal bu tabaarkalla alal bu takku bi eh, nee na loolu moom defal ta bopp la loolu moom mu ngi mu ngi sant loolu itam ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla fay yiw nee na loo gis ne amul politique mais kii ndox la anni moom politique dundi je xam na loolu sax même buñ ci jëmul sax moom kaatu men keta nee na li nga xam ne moom moom la soose def fii tey fonga fonga hadis o naata kam nee na il mu andi ci hadis doole sorota bani israil kono nee na am na jamono bu am bani israil la nomo ñoo la musoo la nee na kooku itam jigéen la min doole yaa muta nee na dafa mar a taata mu dem ci teen ila kolongo maa jam fa nee na teen bi taxul mu xuut a bulata kolongo kono aye ming nee na dugg na ci biir teen bi ca bani israil la mu naan afuntita mu génne musu na musu kurum baalam nee na nag jigéen bi tabaarkalla bu kurum la duniyaatu laa wa nee na loo xam ci mbon jigéen bi jigéen bi kay mu mu mu mu ngi koy mu ngi koy am kabira funtita mais nag def na kabira ah, bi mu génne ci teen bi ayaa tara wuloo be sabbi kan koto kan nga baa suus nee na fekk na xajaa ngi waxi tooy tooyu teen bi mu di ko mar pour min doo kam mala ngir ngir mar bi mar ako hanñi wulunde yimɓe nda men ten nena xaj bi de fu mu toll ni tey min kii dafa mar la nga mulu koron kono nga jiwo biya nga min mu am xel ne naa wëlbati bu duggaa ci teen bi may ko ndox xaj bi naan bulataay sambara sima fandi jiwo la nee na mu dugur jël euh, dallam bi duy ko ndox génne jox ko xaj bi alo ah, wuloye wuloye min mu jox ko xaj bi xaj bi naan ba man di kabiru wulum pareta bi xaj bi pare wulum taate la duben kot xaj bi dem tëdd ci ron kër aba ne nga xaw xaw la ten mu nag muy nooy nooy nooy nooy yi sell aɓe kuwa kam alaye jibirel len ka kaya fo ñim muso e yam fata maga ɗum de aljanna kono nee na nag e, yiw boobu bi mu defal xaj bi lépp loo xam ci mbon ci mbon jigéen bi mu ngi koy def mais yàlla yónni na jibril mu ne ko demal ne ndaw si nandal bi mu nandal xaj bi dindi ko ci mar lépp lu mu defoon ci lu bon ci àdduna bu bés bu mu wuyjee borom dinaa ko dugal àjjana sako hadamadimo naa sako doomu adama bu def lii mo mi nga ñinta hadamadimo ka lii nag ki nga xam ne moom nga jël li lu toll li Koungheul sos li toll ala lépp lu mu wuti ci yàlla ala baa diidaal incha allah rabbi yàlla dina ko def yàlla na koy am ci ci sedd ak ko say mbaa foola nee na gannaaw su loolu passé ndel mbentel Koungheul sos nee na ñun waa Koungheul sos lay wax léegi ñi mo laahi doole tin naatee nee na kii laahi kii nag sart la ne na la sama alal ngi ni mais nak man tam nag dafa am fuma ma bëgg a jëm dafa am lima ma ifa fan alal long yow tam nag da nga war a xam yàlla hidoo timmandi nga timmal laahit bi ak sa nga jàppale ko abe mento ci li mu ne fasaso ndax mu am ko ci li mu génne foroyaat loolu mooy mooy mooy ragal yàlla bari moo kanam bonni ñing kono mais bi ak mar ale suloye nan kam ma mun andi soxlam ci sunu kaw naa filijee nga taa kuko ten ke ñu bàyyi ko dem woor ko di dem di feneen naa jam faade de kon jàmbu nañ ko te yàlla du xaar loolu nin del damma mo ñu forage ma wut ne bu ñun rek xalaatuñ ko sax ne kii kii nag ki nga xam ne moom ki jël yéenu bii ci suñu kaw bakkan ak sunu kaw doom yag njaboot yi nga mu taayee kooku nañ ko téye suñu ah, ñaari loxo koy faasi taa ñaatu ñu ko yàlla ko ci kanam ah, asino dale ko dante ate dan nañu ndoro léegi nag ah, li moom rek suñu koy kon ñaan bi ñu fiy ñaan ndel dama ne bokk loolu ñun rek ñoo koy def yoon ñu ko def bu ci fekkee ni imam bi dafa tukki mais bu ñëwee haalaalale dina waxtaan ak moom ci imam moy naayib si duwa ko ten jiiɓe ɓe a bi mu duggee ci hadis bi loolu la fa wax mi jeexee nee na du tere nag i faut ñu wax ci dara mi ɗen mbe kuwotara keeni moom nag nee na fekk na mbir mi fii ñu ngi koy def ban naari naarlu men mbe nee na bi kër bi mu ñëwee bi bés boobu yëpp burama tum dangan rakkam bi bi ñu àndaloon di Ibrahima Male wokku fotango lépp loo xam ne fekk jeew na gannaawam biɗum fota fota panor depuis ci forade bi fota kolongol bi ci teen yi bi bi ci yeneen jafe-jafe yi dégg lépp wax na ko ci njëkk ak taraanga mu ne ñaanal na ko nee na am na ci kontante bu baax nee na borom dëkk Mamadou Camara nee na mu leen di sant di leen gërëm délégation bi nee na lii jarul bari sax moom ah, nee na fi fi ñu lay la fa waxul métti bu mu tax nga ne nii tey laa yeewu nga wax lu gàtt gàtt bi yëpp nañ wax Socé Diop ne moom def na wàllam nee na sunu bos sobira incha allah ko def nu mu gën a sellee li si def xolam te siggil ko ci biir te lépp luñ ko ñaanal ci barke yi weeru koor yoon dina yàlla dal dina nangu ñaan boobu wasalaam damay fay fay saret bi indil ma xool leen tool bi nu mu yàqu kon nag ñu ngi ñaanal Socé Diop yal na ko yàlla lawal mel ni géej yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ñun jigéenu Koungheul Socé mboolem jigéen ak góor ñu ngi ko fi nekkal ñu ngi ko fi nekk te ñu ngi koy ñaanal kontaan nañ kontaan boo xam ne kenn xamul fu mu jëm suñu jigéen ñi suñu xëyee nii heure bii dañuy root ba minuit ñii dañuy egg ñii wàcc ñii eggaat gis ngeen sama tool bi nu mel te damay liggéey hôpital waaye balaa may xëy il faut ma dem ut nag ñu def ko fii sama tool bi yàqu na genn baar bi rek laay moos kon nag yàlla na ko yàlla may sutur yàlla na ko yàlla may gudd fan góor gu yàlla asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ne turam ak santam comme man li may wax wax bu gàtt la rek olof Njaay nee na bu lekk lekkee alom na ko gërëmee coy ñun ñu ngi sant yàlla ak yonante bi ak elas Hadj sama waay la nag dëkk bi fii ku ko xam ku ko miin ku ne man maata waaye soose bu demee ba def jéego bu gaaw ñii yàlla ak elas Hadj la ñii buñ ko xamul man Ali Camara xam naa ko kon donc waa ku nga soose na leen wóor ne kii ku ko gis fii ku ne boo woolee sa bopp fii booy boo nga wóolu ko parce que boo jisee nit di ànd ak nit te ngay dégg ay commentaire nii te xamoo ko boo xamul sa waay ne ko ee eh, bu ko foogee loo ko xamalul jàmm rek lay dox fii jàmm rek moo ko fi tax a ñëw lépp loo xam ne problème Koungheul Socé la muy El Hadj muy maam set Dieng seen soxla boo ko ko waxee amuñ guddi ak bëccëg loo leen mënta fekk dinañ ko bay toppatoo soxla ku ngeen man loolu rek laa leen di yëgal ngeen baal ma kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp alaaji euh, dootuma ci jaar la ca war a def euh, wax na ko euh, sàll mii ñaari ñii dañoo dooleel Koungheul soose bu seen njëgu bot moo tax ma di ko wax keroog bi ñu ànd ak juumu di suñu jërbaat bu ñu duggee man ne ko mu ne ma déedéet ñu ànd ak yow man may may jiitu baat kenn ku ne wax kàllaamam balaa soo si tontu balaa may wax dara defal na leen yéen yéen ñi wax leen wax yàngoo kenn ku ne dafa jay Koungheul Socé Koungheul Socé mosul fi naan potu ndox kenn ku ne dafa wane ne Koungheul Socé ak njam di ji ñoo bokk ndee ak bay Koungheul ji alaaji al doomi Ablaye Gueye wax noppi li ngeen wax sosé mhm. <coughs> duggu ci noppam mhm. ngeen ne ko nag boo jàppee benn soose mhm. jàpp nga téeméeri sosé bo ñaké ben sosé nak ñàkk téeméeri sosé keroog bàggoo ngi toog sosé ñu koy sante diko ko gërëm man de responsable politique APR la 100% pour guddi ak bëccëg mais so gisee ma ànd ak soose ñi diko japp waxna ko ci kanamam Tourandam Socé d'enfant mu ngi ci politique APR bi mu ngi ci président de la bi ñu bokk ñu yóbbu yàlla li mu bugg moom la ñuy xayal di ko gontal ñun ñi moom la ñuy di ko gontal bi ñu ko waxee li Socé wax def na ko defa nañu seen seen jooytu forage bi dinaa leen jox moteur bu bees te teen bi ngeen wax aussi teen bi duñ ko béy dinañ defar teen bi ndax benn bakkan wóorul tey Koungheul Socé tollale nañ ci bés benn lekk waxtu lañu am gis nga bëccëg bi lañ góor yi di di wóor bu timis passé dañu futte ku nag ci teen wi di wagg jigéen ñi di root benn yoon la ñuy añ bekk reer bi yëpp kere lañ koy def bu ñu lekkee kere bi bëccëg dootuñu dootuñu reer bés ba ca jëkkil ngir mar kese ak coono ji kon nag soose ñu ngi koy gërëm di ko sant na xolam sedd na tëdd nelaw incha allahu xam naa ne moom war mënta ñàkk mais fii de du ko fi du fi feeñee mhm. dañu xotti nañ suñu tànkoy tuubee jaral nañu lu ne suñu bakkan lañ ci teg ndax nit moom kat bu mu la sut jël la jël laa ngor te keroog li nga Alaaji Géey wax ak li nga wax yow mii dangeen ngeen ko yow jigéen ñi ñoo la ñor te moom li mu am xam-xamam moo ko am moo ko ko may day liggéey soldam la am am cabinetam mais politique bi moom faluñ ko benn pal kanaa pal bii ñëw nii pal bii ñëw nii la ca génn yal na ko yàlla jox loola soose ñu ngi koy gërëm ñu ngi nekk fii man de Koungheul soose ji fii la sama yaay dëkk mais Koungheul soose jaral na ma man ma dugg teen jaral na ma xiif jaral na ma fanaan àll jaral na ma yendoo àll ku ngeen soose moom a ko jaral ndax xam naa ne kenn du bàyyi ko biti ñëw dañuy ñu defar dañuy wuuti dem won lañ suñu xiif ak suñu mar ni taxaw ji mais kenn du toog fale nga ne dañoo paan forage nga ñëw di ko defaral ñu tëdd fii du am hmm. kon nag soose li liñ ko teg mu ndàngul ñu ko defal ñu ko ci ay minute incha allahu bi dinañ ko delloo njukkal bi man Cheikh naa Coulibaly loolu laay wax gaa ñi yéen a ngi nii nag kenn ku ne nag léegi mbir maa ngoog ñu ngi nii ngeen jëf biñ ko waxé dafa wo ministre bi ministre bi jox ko directeur bi je pense que kérok même jour la yebal mission mu ñew seet forage forage bi nak lepp dafa bouré won lepp parce que ñi leen doon défaral sen forage bi privé la hmm, privé la loolu nag erreur la mais est ce que mën nga ñew ci élage lan lan ngeen indi fi ni andi nañ fi euh, moteur ñu moy bi ni moy bi ci bir ak mhm. pompe électrogène mhm. ak câble parce que armoire bi dafa yaq dañ koy mhm. armoire dañ koy câbler wat maanaam installation forage bi yëpp a yàqu dañ koy installé waat à zéro. tuyaux yi ci biir yëpp dañu koy tuyaux war na ñëw parce que kat-kat bi ko indi. je pense que dama wax ak Juma ci guddi gi dana ànd ak Bas pour Bas Sall bu demee teg ko pour que suba mu mën ko indi. je loolu moo des pour waa Kaffrine yi ñëw. monte bi forage bi nag forage bi soosee la mais